football wala nga xamante ni. waaw baax na tey da ngay far. waaw good job waaw moom yow moom non non ban ba ba

saa gisoo kay tey moom tey gas fa. Thank you. li fi jàll waaw waaw bu baax a baax waaw xol bu tooy xol bu tooy waaye tamit ak sant yàlla suñu borom que dogal moom suñu yàlla yàlla suñu borom moo koy teg jaamam saa su ko tegee jaamam tamit dañ koy nangu kon tey seet si nañu suñu frère ak suñu sœur soutenir leen dooleel leen wax leen que ni li leen dal tey yombul yombul kenn parce que ñun ñi tey nekk ci bëti mën nañu dal mbirum suñu borom la donc bu tooy lañ ci am ak delloo lépp ci loxo suñu borom. dons yi nga xamante ne indi ngeen ko fii gis nañ ne takku na lool yéen a ko jël ci seen bopp argent wala dafa am ñu leen jàppale. waaw dons yi nag moom dañ ciy sant bu baax askan parce que te yàlla def na ay porteurs de voix dañuy génn ci biti nit ñi duñu xàmmee kon def nañu benn collecte boo xamante ni benn benn collecte de dons boo xamante ni sénégalais yi ànd nañ si ak ñun ba ñu nekk sax ci bitim réew ànd nañ si ak ñun mais ñun aussi tamit nga xamante ni ñun ñoo ko initié dugal nañ loxo bu ci nekk li nga am pour que liggéey bi gën a mën a jaar yoon donc lii ñu njëkk teg la mais xam naa dina am yeneen ak yeneen yoo xamante ni dinañ ko àndandoo pour di jàppale suñuy mbokk sénégalais même sax ñun ñoo xamante ni sax nekkuñu ay sénégalais ay doomu aadama ci réew mi waaw di leen di leen benn ñi ci nekk ñu leen di jaajëfal ñu leen doole parce que yombul il nga am xol dëgg parce que social yombul ndax jël sa alal di ko bokk ak ñeneen yàlla yàlla mayu ko ñëpp mm-hmm. kon kon kon dañ leen di jaajëfal di tamit di di def appel ci ci ci sunuy sunuy sunuy collecte ak suñu ñi nga xamante ni. wa dëgg fa yàlla yàlla may na leen may leen kàttan mën loo lañ ko ñu fàttaliku ñi nga xamante ni caabi dalañ fecc ginnaaw parce que tey ku ci nekk mën nga nekk fii tey jombul kenn am na ñoo xamante ni def nañu am na ñoo xamante ni defuñu kon saa na ne rek bu ñuy bu ñuy xalaat que ni euh, dund goo xamante ni jeexagul lu nekk xaj na ci kon nañ ciy bàyyi xel di lañ jàppale lépp lu ñu am rek ñu partage ko ak ñoom. Sénégalais yëpp nag bëgg emprise bëgg rôle bu ñu fay dund <laughs> ñaari jigéen sekk la xam nga yombul. waaw naka ngay dundee série bi waaw sant yàlla mën naa ne emprise am na réussite parce que sénégalais yi bëgg nañ ko loolu tamit dañ koy delloo ci loxo suñu borom parce que lépp lu ñu def rek bu neex suñu borom moom la neex. waaw kon dañuy sant bu baax sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ñoom ñoo ñu support ñoom ñoo ñu dooleel ba tey bu ñu génn ci mbedd bi ñuy wax Papa Demba. kon loolu dañ koy delloo ci loxo suñu borom xam naa nag di ngeen kii moom xam naa arabisan la waaye ñun lépp si loxo suñu borom lañ koy delloo. loolu dama ñëwaat ci waaw mu nekk ni ci mën a jàng bëri na parce que personnage yi ci nekk bëri na mhm. mais mën naa ni tey su ma jëlee sama yaay Rama mën naa ni parce que am na ñoo xamante dañoo gis ni sama yaay dafa sadique comme ni nga ko waxee dafa sadique dafa métti dafa bëgg doom d' accord mais tamit lépp lu muy def rek am na côté boo xamante ni c' est positif parce que bëgg doom ak bëgg aar njabootam tax na tey jii kenn ku jege doomam lépp lu mu foog ne sax bu doomam choisir loolu sax mën na ko gaañ moom elle pense que moom ay choix moom mooy li gën pour donc côté boobu tamit sénégalais yi mën nañ ko jàngee noonu Papa Demba nag moom euh, jeune la boo xamante ni foowul ndawam jàng la xam liggéey lépp lu mu mës a def yaay moom moo ko choisir foofu tamit problème am na fa mhm. parce que doxul te tamit euh, baax na trop nit di demal boppam surtout góor même bu mbëkkee sax mu jug faxasalu fëggatuwaat teguwaat ci yoon mhm. donc loolu tamit euh, jàngat la gis leen da booloo yéen xam ne yéen ay acteurs mhm. ak ñi nekk ci musique bi lan mooy différence bi bon ñoo bokk milieu bi parce que lépp aar la mënoo ko ci génn ñëpp ay artistes lañu parce que ay artistes kese la ñuy la ñuy tuddee donc je pense que tey ànd bi ñuy ànd dafay gën a dooleel rek suñuy action te loolu la ñëpp war a def ku ci nekk ci wàll bi nga nekk war nga mën a joxante loxo bu ko defee liggéey bi ñuy liggéey liggéeyuñu ko pour kenn Papa ba tey su amee Sénégal moo tax en plus bu amee Sénégal moo am moom moo tax woykat bi woyul pour yaayam pour papaam kese mais day woy pour sénégalais bi donc entente boobu ñu am damay ñaan yàlla suñu borom mu dooleel ko kàttanal ko bu ko defee Sénégal kese moom moo ci moom moo ci moom am la Teranga waaw di ko ñaawlu di ko ñaawlu ndax sutura suñu borom moom moo ko ñu ko bëgg te ku ci nekk rek boo ko xoolee sa bopp. suñu lay génneel say ayib génneel la say ñaawteef du la neex kon nag ku ci nekk rek lépp looy def sa waay ko def sa morom na ko seet sa bopp boo ko xoolee sa bopp ba natt ko ba mu doy la bu la neexee yàqal ku la neex. ndax tey milieu milieu bi nga nekk nii biñ ci duggee ba léegi ban jàngat nga ci naa ci lu baax jàng naa ci lu baax gis naa ci tamit leneen. waaye mën naa ni lépp loo xamante ni rek jàng naa ko ci mën naa ne côté positif moom moo ëpp donc sant yàlla te di wax aussi tamit ñu ànd ak dal rek waaw te xam ne dal mooy lépp woyof mooy lépp dooni taalibe bañ a yennu dara te xam ne lépp rek Sénégal la yam te lépp loo fi gis tamit day jeex. merci non non Bamba bi waaw nii rek nii nii ñu koy toog ndox ndox ngeen di def. C'est bon. Ras, kan ay vidéo amul ak amul coupé yow tamit gis naa pël oto bi photo ak vidéo yëpp laa def ma def ñaari toog ak ku dend moom ku jigéen ah